kala baddo ma képp ko la def da ɓernde nga am xol wawde yaafa ɗum taw ko sa allah mon ko jegal fek ngir yalla kala tajido ma képp ko la dogu mbawa jokka dum taw ko sabu allah nga mon ko jokku fek ngir yalla kala ganjo ma képp ko la bañ ko bolle nga nenal ko mo añaka ku bañul mon fewani sa aajo du da tan yurmede ne li gëna tiss rek moy ndeysan ndeysan ndeysan ñaanul yalla